weeru mai atum 2018 xew-xew boobu nag fàttaliku nañu ko barki démba mu doonoon ñaari at ñu am mbégte dalal tey Ahmed Diawo nekk njiital euh, kon euh, coordination des étudiants de Saint-Louis Ahmed Diawo maa ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci démb ak maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu Sénégal yëpp rawatina sama mbokk étudiants yi particulièrement étudiants yi nekk université Gaston Berger de saint hmm. merci beaucoup. Ahmed am nañu mbégte lool dalal ci démb ak tey ngir euh, ñëwaat ci bis boobu euh, ñu mën a wax ne bis bu metti la woon ci yéen euh, ndax ci ngeen ñàkk kenn ci yéen waaye yéen a ngi doon ñaxtu ngir ñu fay leen seeni bourse bu dee jumuma ndax mën nga ñu ñëwaatal ci xew-xew boobu ak li ko sababoon. waaw jërëjëf encore une fois. avant ñuy commencer rek suñuy propos ñu yeesal suñu njaal famille Mouhamadou Fallou Sène di ñaan yàlla mu xaree ko àjjana si àjjana yu gën a kawe si barke Seydina Muhammad donc comme ni nga ko waxee le quinze mai deux mille dix huit tey la am deux ans mais si kaw loolu ñu ñëw wax yan événement moo tax ñu boomoon suñu camarade boobu boo xoolee mois de mai deux mille dix huit étudiant UGB yi dañ sonnoon trop instant boobu ba avant la quinze bi sax dañ doon manifester def ay ngénte tubaab sax ay manifestation pacifique lañ doon def hmm. ngénte tubaab lañu doon def defuñu benn descente sur la nation lan mooy ngénte tubaab ngir ñi ko xamul ngénte tubaab mooy dañuy ndékki añ reer te duñ fay parce que amaguñu woon suñu bourse d'accord donc loolu moyen de lutte la boo xam ne ñun en tant que ay syndicalistes dañ ko am Mhm. te yàgg na trop des génération et des générations. Mhm. donc c' est c' est un moyen pacifique boo xam ne dañ koy utiliser bu fekkee dañu am ay revendications avant ñuy jàll si yenn état bi. Mhm. comme ça avant ñuy dem ay sur la défense sur la nationale wala ñuy def leneen donc si ngénte tubaab la ñuy jiit la ñuy njëkkee. mais bu ngeen demee dinañ leen servir sans problème. dañuy doon servir sans problème. ok doon servir sans mais par la suite le directeur Crous ak directeur bi ñu fa bi fa nekkoon euh, directeur Crous mooy Ibrahima Diaw. ak recteur bi nekkoon université Gaston Berger ñu koy woowee professeur Baye Dala Baye Dalay kan ñu génnee note ne nañ arrêté ngeen tubaab yi ou bien dinañ woo gendarmerie ci biir campus bi ñun ñu nekkoon suñu dëgg parce que fay ñu woon suñu bourse nekkoon ay syndicaliste am ay revendication war a teg ay moyen pour jot li ñuy revendiquer si kaw loolu le quinze mai sept heures voire sept vers sept heures du matin unité gendarmerie dugg biir campus universitaire mu am ay jàppante entre étudiants yi ak force de l'ordre yi ci lañ boomee suñu camarade Fallou Sène vers huit heures du matin. ok euh, loolu nan la nan la demee euh, étape boobu ndax euh, dañoo ñëw yéen tamit ngeen jàkkaarlook ñoom di xeex wala dañu leen a song bu ñu mënee leeral. non dañ ñëw dañ ñëw ne étudiants yi bu fekkee dañ bëgg dugg ci réseau yi il faut ñu yor ticket hmm. alors que ñun dañ nekkoon mouvement grève hmm. parce que dañ décrété woon ne dañuy def ngénte tubaab dañ décrété woon ne dañuy def ngénte tubaab léegi directeur CROUS bi fa nekkoon ak directeur bi ne du si dal hmm. étudiants yi bu fekkee dañ bëgg dugg si réseau yi il faut ñu indi seen ticket alors ñun ñu ngi doon réclamer suñu bourse donc mu ñu woon ñëw di réclamer dara décrété ba pare di si dellu ginnaaw ci la am affrontement entre étudiants yi ak force de l'ordre ñu jàppande ci la kenn si ñoom génnee pistolet boom suñ benn camarade hmm. ah, ah, mais mais mais selon euh, version bi nga xam ne moom la ñuy dégg mooy ñoom dañu nekkoon ci danger parce que am na nu mu demee woon ba daal euh, ils se sont retrouvés dos au mur ngeen ñëw di leen songo donc dañu bëggoon leeral pour xam un peu nan la demee woon dëgg-dëgg gannaaw yéen yéen a nekkoon ci euh, fa mu xewee bis booba. d'accord gis nga version yi mën na bëri trop. Mhm. mais étudiants yi aujourd'hui ñoo la mën a wax. nan ak nan la demee parce que ñun mhm. ay témoin lañ ay témoin lañ fekkee nañ ko musuñ nekk ci posture légitime défense ñoom gendarme yi ñoom gendarme yi musuñ nekk ci posture légitime défense boo toll fenn génne seen arme mhm. di tirer ci étudiants yi étudiants yoo xam ne ñi ngi yoruñ benn arme à part des cailloux des yow nga génne sa arme mais proportionnalité yi sax bokkul nañ waxta nañ waxante dëgg proportionnalité yi sax bokkul donc pour rappeler rek à l'opinion nationale et à l'opinion internationale bi ñu wax ne gendarme bi tiré dafa nekkoon dos au mur musul nekk dos au mur. Hmm. panique panique moo tax mu tiré panique moo tax mu tiré waaw. ok noonu nga ko jàngatee. non mais panique bi lan moo ko indi est-ce que yéen tamit euh, seen réaction euh, bés boobu xawul jéggi dayo tuuti. non ñun suñu réaction jéggiwul dayo xam nga lan moo tax jéggiwul dayo mm. parce que ñun ba ñuy décréter dañu wax ñëpp ne dañuy décréter mm-hmm. dañuy décréter GST ba pare joxe ay motifs yu valable képp ku décréter mm-hmm. joxe ay motifs yu valable je crois bien que amul lenn lu ñu war mën a teg ne la pour nga dindi sa décret boobu mm-hmm. mais ay syndicalistes lañ nous sommes là-bas pour défendre les étudiants étudiants bu fekkee dañuy souffrir nga toog ñu war la fay le premier ba la quinze fay la deux semaines fay la sa bourse ak conditions yi nu mu méttee woon lan lañ mën def lan lañ mën def à part décréter ay ngeen hmm. loolu lañ def est-ce que lu ko jiitu seen relation ak kilifa université bi xawal woon euh, ñagas tuuti relation bépp bu ñagasee benn relation bu ñagasee ci autorité yi la woon hmm. moo tax après fan lañ mujjee dañ leen fa jëlee parce que mënuñu woon ménager carrément les étudiants mënuñu woon négocier avec les étudiants nekkee wuñ fa pour intérêt étudiants yi mais c'était des kenn xamul en tout cas événement yi conduire woon euh, ñu bëm suñu camarade Mouhamadou Fallou Sène étudiants yi ñoo nekkoon ci dëgg loolu dañ koy wax dañ koy clamer haut et fort te ñu ngi ñaan ba tey nii suñu constitution de partie civile hmm. ci ci affaire Fallou Sène d'accord kon jëlaguñu seen constitution partie civile jële guñ ko le juge enquêteur da ko rejeté de hmm. facto ñu woon sax déglu tey tey lañ déglu ci les échos ñu ne finalement accepté na déglu déglu étudiants yi te ñun bëgguñ mu dégluñu ñu kase ñun dañ bëgg a constitué wu partie civile hmm. bëgguñ mu déglu kase parce que dañu war a dañ am dañ am dañ subir ay préjudice non seulement dañ boom suñu camarade ensuite dañ suñu camarade yu bëri dañ leen blessé en plus suñu matériel yu bëri dañ ko yàq donc ah après ñu xanaa dañu accédé woon ci seen ay euh, chambre ak yooyu. lépp lañ fépp lañ duggoon saccagé fépp fépp lañ duggoon. Hmm. fépp saccagé lépp étudiants yi dañ souffrir et jusqu'à présent ba léegi am na ay séquelles te loolu vraiment il faut que justice am. Hmm. il faut que justice am. d'accord ñu euh, des ba tey ci euh, bés boobu. Euh, nan lañu leen nan la ñu leen attaqué gendarme yi ndax bi ñu ñëwee xam nga dañuy gis souvent ci yenn kilifa yi nekk au sein des forces de défense bu ñu ñëwee dañuy jiital waxtaan man sama bopp personnellement assisté naa ci yu bari fii ci université Cheikh Anta bu Dakar alors est-ce que ñoom jiital nañu médiation boobu seen diggante ak yéen d'abord. non non xam nga bu fekkee daan ay moom laa la wax sànq ma ne la mois de mai deux mille euh, deux mille deux mille dix huit mm. dafa bëri woon ay ay ay jàmbaarloo dafa nekkoon ay moment yu yu yu yu difficile ok c'était pas la première fois force de l'ordre ñëw biir campus di ñëw réguler bien pour arrêter ci weeru mai boobu waaw lan yan événement ñoo si amoon yëpp ay ngénte tubaab la yëpp d'accord en quelque sorte ay ngénte tubaab te yëpp aussi bourse moo ko waraloon bourse moo ko waraloon. bourse moo ko waraloon lépp ay génte tubaab la. maintenant mais si jour boobu gendarme yi dañ ñëw taxaw si buntu restaurant ne étudiants yi duñ ndékki tànkal joxe wuñ ticket loolu moo indi coow li de. waaw pot moo tax sànq ma la ndax euh, lu jiitu bés boobu le le quinze mai euh, dafa am yeneen euh, mbir xëy na yu taxawoon seen diggante ak xëy na direction bi ñagas. autorité vol autorité waaw mooy ngénte tubaab ñu doon def. d'accord parce que dañ waxoon ne ngénte tubaab bi dafa bëri alors que bëriwul. parce que ngeen tubaab yi mais est-ce que est-ce que tamit amul impact ci peut-être gestion bi lu leen ñeel. non munul bu fekk même bu fekkee am na impact d' accord mais avant impact yooyu mais doo leen wax si bourse yi ñu war a jox étudiants yi ñu bañ ko fay mais lan moo tax à chaque fois rek bu fekkee def nañ jënd tubaab d' accord day économie bi fay bourse yi mais ñoom dañuy yuux ne seen jënd tubaab yi ni ngi impacté si suñu budget par contre bu fekkee dañ def descente sur la nationale mais automatiquement on paye les bourses bu fekkee dañ dañ génn université di sànni xeer ak policier jàmmaloo mais à minute dañuy dañuy dañuy tudd dañuy dañuy fay bourse yi parce que saa yi ñu defee distance sur la nationale dañ koy médiatiser. Hmm. dañ koy soit dañ koy teg télé wala dañ koy teg rajo. Hmm. te loolu enragé wul autorité yi nekk ci kaw. par contre bu fekkee ñu ngi def ngénte tubaab comme li ma la wax moyen pacifique la. mooy loo xam ne amul benn coow ngeen pour ngénte tubaab aussi ci durée bu xaw a gudd boobu. Euh, mu noon ngeen def ni ngeen daan def bu ko defee autorité yi dégg leen fay leen pour pourquoi. xalaatu leen loola xam xam nga xam nga xam nga am na fu muy toll. bu fekkee dañuy def descente sur la nationale. Hmm. da ngay te UGB instant boobu dañ xawoon retard. Hmm. moo tax loolu il faut que ñu rappeler ko nit ñi. dañ xawoon retard. ok ñi ñu jiite woon instant boobu nekk ay responsable bañ a laal tout ce qui est pédagogie. Hmm. laal social bi. social bi mooy ngénte tubaab. d'accord bu fekkee dañ doon laal pédagogie boobu kon UGB doon na doon na def année invalide bu yàgg. Hmm. te terewu ko sax parce que fàllu seen événement yi ba mu amee bañ def grève quarante cinq jours. avant ñu retrouver ak classe mais ñu bëri administration yu bëri dañuy euh, dañuy def nu mu tudd année année sabbatique wala année invalide hmm. UGB ñu bëri dañ perte seen année boobu. te yéen amuleen ñu taxaw tuuti ci bourse yi amuleen benn interlocuteur boo xam ni mën ngeen toog ak moom en toute responsabilité waxtaan euh, jéem a lijjanti mbir mi amuleen ko. gis nga gis nga pour bourse yi. Hmm. chaque mois lu neex la ñuy def. pour jot suñu bourse ba léegi dañuy ba léegi. pourtant président ne woon na léegi désormais euh, avant le. très bien daanaka ngeen jot suñu moo tax moo tax occasion la pour ñun. Mm. étudiants yi ñu rappeler engagement bi président de la république jëloon mooy fay bourse yëpp au plus tard le cinq de chaque mois. gis nga Ecobank xam nga nan la ñuy def. Mm. le vingt neuf la ñuy commencé paiement bu ñu waree fay cent étudiants. Mm-hmm. ñu commencé paiement le vingt neuf. Ah. le vingt neuf ba cinq ñu fay si vingt hmm. mu des quatre vingt pour cent mais quatre vingt yooyu dañuy daxante ba fay du mois ok ñëpp ak may dégg ba tey fi may wax ak yéen nii étudiants yu bëri UGB jotaguñu seen bourse te mu nekk ñoo xam ne ay ay ayant droit lañu ñooñu ñu ngi si état de paiement yi te état de paiement yi mi ngi si Ecobank lenn rek moo si des mooy fay Ecobank ne du fay li ñuy def noonu xam la nañ ko tuddee ñun hmm. simulation ak de la tricherie parce que mënoo wax carrément que waaw damay damay damay respecter autorité bi lu mu wax mooy le président mooy fay bourse yi avant le cinq def semblant dañuy commencé la vingt neuf étudiants yi di jot ñii jot ñii jotuñ ñii jot ñii jotuñ ba le cinq hmm. ñu stand by le reste di dàqante di dàqante mën nañ dàqante ba le vingt du mois am na ñoo xam sax duñ jot seen bourse xam nañ leen lañ def hmm. dañ leen di envoyé code bu nekkee le vingt le vingt lañ leen envoyé code ñu xaar ba le vingt quatre ñu ne leen votre argent a été retourné à la banque. ah oui ñu non étudiants yi li ñuy dund c'est c'est catastrophique. mais est-ce que loolu kilifa yi xam nañ ko. mais kilifa yi lu tax xamuñ ko. parce que kilifa yi ñoom ils sont censés connaître tout. mais ils sont censés ils mais est-ce que yéen wax ngeen leen ko est-ce que. est-ce que par exemple situation bi bi mu bi mu compliqué noonu ñaan ngeen audience ki nga xam ne moom mooy seen interlocuteur attitré toog ak moom waxtaan expliquer ko li ci nekk yépp mais li gën a pire mooy bu ñu leen envoyé Ecobank bu ñu ko envoyé mail sax duñu répondre non xam nga yéen peut-être étudiant ngeen mën nañu leen bañ a jox gëdd boobu mais ñi nga xam ne ñooy xam nga des fois aussi. Euh, dañuy ñu rek. Mhm. c'est-à-dire ay ñoom waaw mën nañu bañ a jàpp ne nañ leen peut-être explication mais ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jox marché bi sant leen ñuy fay ñu bu ñu waxee ñoom mi ngi mel ni tey nga nekk sa kër euh, sa doom ak sa personnel de maison xam nga boo def mun ne ko yow indiwoo ma fi fayoo mais mhm. su la situation bi dépassé di nga dem ci sa wayjur bi nga xam ne moo ko engagé euh, expliquer ko eh xew bu ko defee moom ñoom ñaar bu nu traité xëy na mu gën a gaaw euh, man damay foofu laay foofu ñëw après mhm. cest à que ñun bu fekkee dañu rencontrer ay problème mhm. xam nga ban inter ñaari interlocuteur lañ am mhm. ñu dem ci Ecobank muy suñu recteur ak directeur des bourses d'accord bépp mail bu ñu def ba def ci problème yëpp dañ koy envoyé suñu recteur ne ko ñu ngi lay ñaan nga transmettre mail bi Ecobank envoyé waat le même mail directeur des bourses mu mm-hmm. envoyé ko Ecobank. Mm-hmm. Ecobank buy répondre duñu répondre de. mais ñooñu lay répondre. Mm-hmm. bu leen bu répondre soit directeur wala directeur des bourses. ñu transmettre ñu réponse bi. chaque fois noonu lay demee. des fois directeur des bourses sax da leen envoye envoyé mais si seen réponse sax. non da nga siy gis arrogance yu extraordinaire. c' est comme si que respecte wuñ étudiant bi. wala soit étudiant bi muy wax du dëgg. d' habitude xam na lañ def. dites aux étudiants de nous des preuves. ñun suñuy étudiant ñun ak représentant yi ñooy wax étudiants yi ñu defal ñu ay nu mu tudd ay preuve soit ay capture d'écran et tout ça wala soit seen état seen compte envoyé ñu ko ñu envoyé ko directeur des bourses envoyé ko directeur pour mu envoyé ko économie gis nga chaîne bi nu mel. Mm. mais loolu yëpp manque de volonté la amul leneen xala maa tay la maa tay mm. la ñuy def. bañ a fay étudiants yi di retarder étudiants yi di sonal étudiants yi loolu rek la ñuy. lañ ci jublu mm. parce que étudiant euh, ñu ngi koy rappelé aussi gis nga bourse critère d' excellence la mm-hmm. aujourd'hui nekkul comme ça li gën a yomb rek laa lay wax nouveau bachelier yi ñu am bac deux mille dix neuf mm. seul vingt huit pour cent ñoo am bourse vingt huit pour cent vingt huit ñoo am bourse vingt huit pour cent yooyu lu tax ñu am bourse parce que dañ ko mérité dañ am ay résultat yu baax bak mm. donc étudiant bi war a am bourse nga bañ ko ko jox mais kooku yaa ngi remettre en cause excellence yaa ngi remettre en cause excellence. Hmm. parce que il faut le dire bourse critère d' excellence la da ngay jàng am résultat baax nga am bourse boo jàngul am amoo résultat yu baax mais dañuy nangu bourse bi loolu tamit naka gaa yi naka gaa yi jàpp bourse nekkul étudiant yëpp ñoo koy am. Hmm. critère d' excellence la donc dañ ci war a def du sérieux di fay bourse à temps di motiver étudiants yi ñu jàng ah. conditions yi ñu nekkee dafa métti. Mm-hmm. nañ fay bourse yi à temps. kon depuis actualité actualité laa lay wax. actualité laa lay wax mm-hmm. actualité. Mm-hmm. mooy bourse yi ba léegi UGB fayaguñ bourse yi. leer na ma même problème moo nekk si yenn université ak yenn étudiants yi. Mm. bind nañ mail Ecobank depuis quatre jours ba léegi amuñ réponse te xam nañ carrément que dëgg lañu wax li gën a pire mooy souvent étudiants yi Ecobank di di di retarder seen paiement mooy ñu war jot ay rappel Mm. ay grosse somme. ñi ñu ñi ñu daal ay arrière. ñi ñu très bien ay rappel. ok ñooñu lañ dul fay. mais c'est inadmissible. du dëgg du yoon. du dëgg du yoon. Mm-hmm. ñun yuuru nañ fu nekk. woowu nañ ku ne. pour mu rappeler Ecobank ñuy fay bourse yi à temps. Mm-hmm. mais malheureusement. il faut que étudiants yi sonn. Mm-hmm. il faut que étudiants yi yuur il faut que étudiants yi sànni ñu mën a ñu mën a jot seen bourse. kon daal depuis lors depuis lors mun nañu ni dara changé wul malgré président li mu waxoon. dara changé wul dafa gën a piir dara changé dafa gën a piir euh, parce que lu tax mu gën a pire. Ah. mooy digg la ne la dinaa la defal lii nga yaakaar ko nga am lu yées loolu mooy dinaa la fay avant le cinq ñu lay fay ay le vingt wala le vingt cinq mais. dafa doy waar. d'accord kon mën nañu njoxtu ne aussi ci ngénte tubaab ngeen nekkaat wala defu leen ko bi actuellement non. Hmm. actuellement étudiants yëpp ñu ngi kër ñoom. occasion boobu la ñuy saisir. moo tax il faut ñu rappeler ko c'est bi waaw. très bien euh, étudiants yi ñu ngi seen kër les universités sont fermées. Hmm. ils sont dans hmm. moo tax ñuy def lu leen neex bañ a répondre suñuy mail. bañ ñu faale bañ fay bourse yi. moo tax sànq li ma la wax rek laa lay maa tey la ñoom li ñuy def noonu. ñoo ko tey xam nañu étudiants yi ñu ngi seen kër toog mënuñ rassembler wu mënuñ manifester moo tax ñu bañ a fay bourse yi. d'accord ñu ñëwaat ci 15 mai 2018 Fallou Sène euh, ci ban circonstance lañu ko faatee ndax moom dafa bokk ci ñi doon xeex dafa bokk ci ñi doon sànni xeer wala dafa doon dox doxam euh, ñu dal ci kawam. non boo nee dafa doon sànni xeer wala xam nga circonstance yi. yi mm-hmm. tax Fallou Sène génn àdduna. Mm-hmm. étudiants yi nekk UGB yëpp mënoon mënoon nañ euh, am les mêmes problèmes c'est-à-dire que euh, ñu ñu ñu ñu boom leen mm. parce que suñu campus lañ nekk mm-hmm. ñun ñoo nekk si campus ñoo ci dëkk bu fekkee daa am ay unité de gendarme yu déployé déployé yu ñëw ci biir campus mm. ba mu am entre étudiants ak force de l'ordre xam nga ñun defuñ distinction mm-hmm. étudiant ak force de l'ordre la ñu wax mm-hmm. tous les étudiants ak les forces de l'ordre ci biir loolu Fallou Sène ci étudiants yooyu la bokkoon man mii si laa bokkoon sama yenn camarade si laa si lañ bokkoon mm-hmm. bal atteindre ko mu gën àdduna bal bi ko atteindre mën na wala soit bal boobu atteindre ko beneen bal atteindre ma donc affrontement la entre gendarmerie ak étudiants yi affrontement la si lañ ko si lañ ko si lañ ko boomee d'accord c'est ça si la ñàkk bakkanam aussi wala euh, jéem ngeen ko rawale tuuti. rawale nañ ko après dañ koy yóbbu CM euh, mooy suñu centre médical bi par la suite dañ koy évacuer di ko yóbbu hôpital régional Saint-Louis la succombé la succombé mm. après loolu sax moo gën a merloo étudiants yi ba ñu yégee ni am nañ suñ benn camarade bu ñu bu ñu fàtt mm. bu ñu boom ci la manifestation bi gën a gën a gën a gën a métti parce que bon dafa dafa metti trop ngay réclamer loo xam ne yaa ko am ñu bañ la ko jox ba pare di la si faat hmm. comme ça devient extraordinaire. lan moo nekkoon réaction wu gendarme yi bi nga xamee ni eh, yëg nañu ne am na ku génn àdduna du côté des étudiants. réaction gendarme yi xam nga ban réaction. Hmm. lu dul daw génn campus ok dañoo génn. dañ daw loolu moo tax sax dama ne la panique moo tax ñu tiré. ci kaw hmm. Fallou Sène dañ daw après bàyyi ñu espace bi yëpp. ba étudiants yi dañ génn université bi après occuper presque deux kilomètres université. Hmm. deux kilomètres ou bien plus. ok amul benn genre ñu manifester manifester manifester ba sonn d'accord. Hmm. d'accord ñu fàttali ni démb ak ngeen di teewlu ñuy euh, waxtaane euh, la xewoon université Cheikh Anta Diop euh, université Gaston Berger autant pour mois 15 mai 2018 muy événement yi nga xam ne ci la fàllu seen ñàkkee woon bakkanam alors depuis lors Ahmed Diaw yow mi nu ciy dalal tey nga jiite coordination wu étudiant yu UGB depuis boobu gis nañu tamit dossier bi mi ngi ci yoon mais ngeen wax ne dafa am ay yéex yéex ay mbir yu bari aussi jot fee am ñu koy wax rebondissement ndax mun nga nu ñëwal ci étape yi nga xam ni dossier bi jaar na ci euh, deux mille dix huit ba tey deux mille vingt. très bien donc euh, gis nga dossier Fallou Sène bëri na ay rebondissement trop mais ñun liñ ci jàpp mooy état bi ak autorité judiciaire yi bëgguñ justice am le pourquoi gis nga ba événement yi amee le quinze mai deux mille dix huit si jour J procureur Saint-Louis Ibrahima Ndoye hmm. dafa autosaisiro ubbi enquête mais su guddi gi commandant légion nord hmm. le colonel Papa Samba Cissé hmm. moo affirmé publiquement ne boom bi ñu boom Fallou Sène am na implication bu kenn dul naataamle implication gendarme gendarme boobu moo jiite woon unité bi ñu woon biir UGB. donc moom dafa affirmer implication gendarme léegi Sénégal nag bu fekkee militaire parce que gendarmerie si mili si ay les gendarmes ay militaires lañ. donc bu fekkee militaire si exercice su fonction si def erreur pour justice mun ko àtte il faut que ñu jot benn papier. muy ordre de poursuite boo xam ne mu ngi war a jóge ci ministère euh, des forces de forces armées hmm. donc problème boobu moo tax procureur Saint-Louis jël dossier bi jébbal ko parquet de Dakar procureur bu nekk Dakar hmm. en plus Dakar mooy lieu de siège bu tribunal militaire hmm. donc bañ ko jébbalee dossier bi procureur Dakar war a def demande pour jot ordre de poursuite bi mooy loo xam dafa nekk lu automatique parce que dëkk bu dëkk état de droit lañ nekk loolu warul taxaw mais malheureusement toog nañ ñu ngi boom fallu Sène hmm? mai deux mille dix huit toog nañ juin ba septembre deux mille dix neuf ñu mun a jot ordre de poursuite boobu ordre de poursuite bi lu tax ñu jot ko parce que coordination des étudiants de Saint-Louis dafa dafa gën a somb si xeex bi hmm. somb si xeex bi autant pour moi waaw collaborer ak Amnesty International Amnesty International jox ñu avocat hmm. ñu ut suñuy avocat continuer xeex bi def pression ba ñu jot ordre de poursuite bi plus d'un an après le meurtre donc ba ñu jotee ordre de de poursuite bi jébbal ko justice léegi le juge enquêteur inculpé le gendarme en question pour coup mortel mais ba mu ko inculqué ñun ce qu'on attendait mooy gendarme dañ koy placé sous mandat de dépôt jàpp ko continuer enquête bi vite fait jugé ko condamné ko selon la loi mais malheureusement ñu placé ko contrôle judiciaire bàyyi ko bàyyi ko mu dem léegi jëlaat dossier bi rangé ko ba mu naaj dugal ko si tiroir depuis lors ngi suñu avocat mi ngi dem di gis doyen des juges bi mais ba léegi dara ñun temps yi déposé nañ ci table juge benn dossier bu am liste benn dossier bu am ay étudiants neuf étudiants yoo xam ne UGB lañ nekkoon jiite nekk jiite woon étudiants yi fekkee woon événement yi taxoon ñu boom Fallou Sène hmm. ñu teg ko si table juge bi ne ko monsieur le juge ñi ay témoin lañ te dañ dégg temps yi si journaux yi ñu ne dossier Fallou sen bouclé nañ ko mais nan ngay bouclé suñ dossier camarade te déglu woon nan ngay bouclé suñu dossier camarade te ba léegi nanguwoo suñu constitution partie civile mu nekkoon ay questions yoo xam ne vraiment da doon tëj suñu bopp bi hmm. parce que am na loo xam ne incohérence la hmm. mun na ne da ngay defal justice ñii te duma leen déglu tubaab day wax tout ce que l'on fait pour toi sans toi et contre toi maanaam lépp lu ñuy def pour yow te boolewuñ la si dañ koy def contre yow je crois bien expression bi noonu hmm. donc si si kaw lool bañ déposer euh, neuf étudiants yi si table si table juge juge daf ne duñu déglu daf ne tamit du nangu suñu constitution partie civile te ñun xamuñu lu tax. Hmm. en plus ñu ngi rappelé tamit lan moo taxoon dossier Fallou Sène bi ñu yëkkati woon ko début mois de mars temps yooyu déglu woon ngeen ci yenn journaux ñu ne waaw dossier bi bouclé nañ ko léegi ñu dem procès xam lan moo taxoon. Hmm. parce que le président de la République devait effectuer un déplacement à Saint-Louis. léegi pour jéem a neexal étudiants yi mu jéem a def semblant yëkkatiwaat dossier bi hmm. alors que musuñu am volonté sax def projet yàlla xam na loolu ñun nag ñu ngi doon ñu ngi doon ko xaar ak les pieds fermes parce que tant que justice amul ci dossier camarade Fallou Sène moom le président de la république du mës a teg tànkam UGB wax nañ ko ko hmm. Hmm. dafa bëgg a ñëw foofu inauguré ay bâtiment forage bi ñu fa def et cetera mais tant que justice amul pour Fallou Sène du mus a teg tànkam UGB te loolu ñu ngi koy wax haut et fort gis aussi tamit ñu ngi rappelé beneen affaire mooy ñëwam boobu UGB mi ngi ko waroon def mois de mars coronavirus bi moo tax mu jéewul ñëw UGB hmm. loolu moo taxaat loolu moo tax ñu jëlaat dossier bi lem ko dugal ko si tiroir donc c'était purement politique dañ doon wax naan dossier bi bouclé nañ ko mosuñ ko bouclé. mosuñ hmm. ko bouclé. d' accord léegi bi ngeen déposé list euh, témoins yooyu ndax diggante boobu ak léegi am ngeen fi benn écho favorable. écho favorable mooy ba justice ak autorité yi hmm. déggee ñu ne ñu ngi waajal suñu euh, anniversaire deuxième anniversaire camarade hmm. bañ ko faatee ba léegi si lañ dégg tey si xibaar yi ñu ne finalement le juge enquêteur nangu na déglu étudiants yi. Hmm. mais xoolal rek bañ ko boomee ba léegi ñaari at nga war a def nga war a def mooy la première chose à faire mooy déglu sax étudiants yi. Hmm. déglu ñeneen def instruction bu baax defoo ko deux ans après nga ne non damay dem déglu étudiants yi. c'est pas sérieux kon pour enquête bi awul yoon. awul yoon hmm. enquête boo xam ne deux ans la ñoom xam nañ ku boom suñu camarade Fallou seen amul lenn lu leen empêche ñu def enquête bi jël ki ko ki ko bom àtte ko tëj ko comme ni ko yoon diglee nga toog deux ans defoo ko boo déggee anniversaire wala lenn ngay naan ok xaar ma def lii xaar ma def lii enquête bi jaarul yoon c'est pas sérieux c'est pas sérieux enquête bi jaarul yoon te loolu ñu ngi koy dénoncer vivement ñu ngi koy dénoncer vivement ah ñu ngi koy dénoncer. alors est-ce que am ngeen yaakaar vraiment ci ci dossier bi bu ñu xoolee fi mu jaar yëpp euh, lieutenant bi c'est vrai que mi ngi euh, sous contrôle judiciaire mais ndax yéen yaakaar ngeen ni procès dina am ba condamnation topp si. Euh, si selon ni yëf yi doxee deux ans ba léegi. ay étudiants lañ. même dossier bi. on le souhaite pas bu doon def cent ans dañuy gëm ne justice dina am parce que tey lañ gën a farlu tey la ñu gën a déterminé wu pour que ki boom suñu camarade ñu mun ko tëj te lépp lu ci war dinañ ko def duñ bàyyi duñ xaddi duñ taaye dañuy continuer xeex ba ki boom suñu camarade ñu jàpp ko atte ko sanctionné ko comme loi bi ni ko waxtaanee. Mm-hmm. ni ni mu ko ni ko ni mu ko ni mu ko diglee. Mm-hmm. donc yaakaar bi mm-hmm. ba léegi ñu ngi fi. d'accord am nañ yaakaar bu baax parce que ci état de droit lañ nekk. am nañ yaakaar bu baax. te incha allah ki ko def dinañ ko jàpp duñ bàyyi duñ bàyyi. d'accord yéen ki ñu teg loxo euh, euh, en fait sous euh, surveillance ndax moom ngeen jàpp ne moom la parce que yéen a ngi doon wax ne ñëpp xam nañ ki tiire. ñoom tamit xam nañu ki tiire est-ce que c'est c'est bien ki nga xam ne moom la ñu yóbbu. ci kanam juge bi ngeen jàpp ne moom la. waaw kiñ placé. sous contrôle judiciaire hmm. mais moom la. d'accord moom laa lay wax ne la autorité gendarmerie sax xam nañ. parce que si événement yi ba mu amee si guddi gi. Mm. le colonel Papa Souleymane Cissé di jiite Légion Nord. Mm-hmm. moo taxaw publiquement ne am na implication gendarme si meurtre Fallou Sène mm. te implication boobu mooy ki jiite woon unité gendarmerie bi ñu déployé woon biir UGB si jour boobu. donc ñëpp xamoon nañ ko. bien sûr moom lañ euh, mettre sous contrôle judiciaire. Mm-hmm. moom lañ mettre sous contrôle judiciaire. d'accord kooku nag lañ bëggul àtte. Hmm. pour yéen euh, lenteur yi yëpp euh, dañoo bëgg daal maasale mbir mi jàll. Euh, bañ ko lenteur yëpp lenteur bi yëpp dañ bëgg a maasale affaire bi jàll. d'accord loolu yëpp boo xoolee kan la. autorité yi te autorité suprême bi c'est le président de la république. Hmm. ñoom ñoo bëggul justice am. parce que boo gisee sax lu tax ñu ne étudiants yi duñ constitué partie civile. Hmm. parce que dañ bëgg étouffer affaire bi. c'est grave dañ bëgg a étouffer affaire bi hmm. xam nañu ñoom mënaluñ étudiants yi dara mënuñu corrompre ñu def dara li ñuy ñaan mooy justice am nañ def le tout ba justice am état bi li ñuy indexé wax nañ ko démb état bi li ñuy indexé directement parce que ñoom la bu leen neexoon tey tey tey tey ñu accélérer le processus ñu def jugement bi procès bi am ki def faute bi ñu condamné c'est simple mais boobu léegi da nga leen gis def ci benn jéego bu seree. depuis lors relation étudiant UGB ak euh, gendarmerie bi lan la est-ce que indi na tuuti changement peut-être dal am na wala gën nañoo tey euh, ndax diggante bi am na fi yeneen manifestation yu am def ngeen fi ay ngénte tubaab def ngeen fi ay euh, revendication mais est-ce que deewu fàllu seen mi am na lu mu changé ci rapport yi ngeen amoon ak force de l'ordre yi. bon xam nga souvent. dañ koy dañ koy wax quoi mooy force de l'ordre yi nekkuñ ay ennemis étudiants mais tamit étudiants yi nekkuñ ay ennemis force de l'ordre ñoom lenn la force de l'ordre mais bu fekkee dañ constaté boo xam ne war nañ ko indi ordre ñu rétablir ko depuis lors nag bon mun nañ wax ne relation yi comme ni mu meloon la euh, avant meurtre Fallou seen comme relation yi ni mu meloon la bu fekkee waxtaan dafa dafa dafa jot dañuy toog waxtaan bu fekkee affrontement dafa am dañuy affronté wu am bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na. waaw d'accord Ahmed dañu bëgg a ñëwaat tuuti euh, ci doxalin bi nga xam ne étudiants yi moom la ñu am xam nga euh, ci ndoxteel bi maa ngi lay laaj ndax balaa ngeen di yegg ci manifestation boobu jéem ngeen waxtaan jéem ngeen a xool yeneen option yoo xam ne mën ngeen ko utiliser tey bu ñu xoolee li faatu ci étudiants yépp moo xam Dakar la moo xam feneen li ko waral mooy euh, ay revendication ay bourse c'est vrai que seen droit la mais souvent li ciy topp mooy am na ñu ci blessé bu gënee pire am na ñu ci ñàkk seen bakkan donc liy metti mën nañoo wax ne ci yéen lay lay jóge wala liy gën a metti en tout cas ci seen kaw lay dal ndax yaakaaroo ne tey jot na étudiants yi xool beneen moyen de lutte boo xam ne euh, dina tax ngeen mun a am li ngeen bëgg mais fekk ay loraange du ci am ndax ki ñàkk ba kanam moom ñàkk na ko njabootam ñàkk na aussi euh, xëy na la mu leen doon euh, jariñ ñoom rek ñoo ko xam keneen mënu leen kaa remplacer ak lu ñu leen mën a defal affection aussi bi nga xam ne nit ki doon na ko jëmbat digganteem ak ay mbokkam loolu alal mënu koo fay alors est-ce que yaakaaroo ne tey jot na dëgg-dëgg ngeen xalaat beneen façon boo xam ne si ngeen di xeexee pour mun di éviter yii parce que léegi dafa dem ba euh, pratiquement bu yàggee dootul sax nekk information Basirou euh, euh, Basirou fay mi ngi nii Université Dakar xam nga at bu jot ñu ne dañu fàttaliku kii dañu fàttaliku kee te toujours si si même même même causes yi lay nekk les mêmes causes produisent les mêmes effets comme ni ñu koy waxee yaakaaroo ne tamit war ngeen a xoolaat tuuti yéen seen seen doxalin waaw gis nga doxalin bi ngay wax hmm. xoolaat doxalin mais dañ nekk ci dëkk boo xam ne ñu ñu jiite les autorités mm. nekkuñu ay autorités yu sérieuses gëmuñ négociation gëmuñ dialogue ay tama il faut nga leen di tëgg pour ñuy mën a réagir gis nga ñun exemple coordination des étudiants de Saint-Louis mm. laa lay jox mm. ñun lépp lu ñuy def dialogue concertation négociation lañ ci jiital a chaque fois mm. les moyens pacifique la ñuy jiital chaque fois mm. même revendication bi lu mu lu mu diis diis diis dañuy jéem a négocier dañuy jéem a waxtaan mm. dañuy négocier dañuy concerté wu mais autorités yi gëmuñ dialogue bugguñ dialogue moom la aleer sànq ne la bu ñu defee ngeen tubaab ngeen tubaab mooy pacifique la duñu sonal kenn et cetera même si day impacté si budget bi d'accord mais du ñu faale tant que wàccoo sur la nationale sànni xeet wóor na jaabi yu duñ réagir. mais kooku de bu ngeen ko naree def chaque weer moom dina métti. mais chaque weer nañuy fay bourse mais waaw loolu laa wax ma ne donc bu ngeen ko naree def chaque weer dana dana metti très bien très bien étudiants yi dañoo sonn dañoo sonn dañoo sonn ñu bëri na dañ teg ne yi. sànni xeet rek la xam wala taal et cetera et cetera non loin de là étudiants yi aujourd'hui kenn gënu leen nekk modèle parce que damay wax étudiants yi parce que damay waxal tamit euh, yàlla gis nga même pandémie bi hmm. étudiants yi ñu ngi ciy def euh, taxawaay am am nañ ci taxawaay bu bu bu bu extraordinaire hmm. taxawaay boo xam ne dañ ko war a saluer parce que ay citoyen lañ. ay modèle lañ ñëpp mm. ñëpp ñi nekk seen commune yi booy xool. Mm. ñu ngi agir di sensibiliser la population. bëgguma tudd benn plateforme bu ñu mettre en place. Mm-hmm. parce que taxul ma ñëw mm-hmm. mais juste que rek pour rappeler la ne étudiants yi ay modèle lañ. Mm-hmm. donc nekk ñoo xam ne ay fauteurs de trouble lañ non non loin de là sommes des citoyens te bu ñu réclamer suñu droit tamit dañ koy réclamer mais bu jeexee jeex na. d'accord léegi lan nga gis yow comme solution ci problème mu bourse yi parce que yàgg na fi yéen xëy na di ngeen pare UGB dem nekk ci leneen seeni rakk ñëw war a nekkaat ci loolu peut-être ñu ñuy wàññiwaat yàlla bu mu am yeneen étudiants yu ñàkk seen bakkan yeneen jafe-jafe yeneen ñuñ ci blessé yeneen affrontement lan nga gis ne euh, mooy solution te bu ñu ko defoon tey euh, coow li jeex solution bi rek première solution bi mooy ñu toogaat acteurs yëpp toogaat waxtaan définir ay modalités yu bees ba pare bourse yi xam nga Ecobank moo ko géré hmm. moom kese moo ko géré moom mooy joxe bourse yi ñu jël ko si loxo Ecobank tas ko jox Ecobank jox yeneen banque parce que il faut mu am concurrence hmm. li mu amul concurrence actuellement moo tax Ecobank di def lu ko neex lu ko neex lay def il faut que ay convention yu bees am il faut que ñu changer modalité yi il faut que ñu may chance yeneen banques yi ñu mun ñëw parce que Ecobank yenn yi xam nga la lay ndóol hmm. munul te bawul léegi kan moo si yàqule étudiants yi pour éviter tout ça nag nañ toogaat waxtaan may yeneen banques yu mën a fay étudiants yi ñu boole leen ci marché yi yeneen opérateur yu am capacité yi ñu boole leen si si si si si si si euh, si circuit bi pour ñuy mën a fay étudiants yi mais tant que nii lay demee problème bi du fi jógee te le président de la république xam na ko bu baax ministère de l' enseignement supérieur xam nañ ko bu baax ministère des finances xam nañ ko bu baax donc nañ toog ak étudiants yi nañ toog ak étudiants yi redéfinir modalité yu bees xool nan la ñuy gérer waatee bourse yi hmm. buñ ko defee mun na am changement mais tant que nii lañ ko bàyyi day dem de mal en pis malheureusement. Mm-hmm. avant eh, avant Ecobank di ñëw ndax am nga loo xam ci situation bi fi nekkoon. non avant Ecobank parce que man euh, maa ngi sama sama troisième année. maa ngi sama troisième année ba mu ñëwee ba léegi. Ecobank laa fekk muy muy muy muy fay bourse yi. te boobu ba léegi Ecobank année boobu la arrêté di jox étudiants yi carte GAB. Mm. di di produire ay carte GAB. man année ban année bi Fallou Sène génn àdduna ah ban année année deux mille dix huit en année deux mille dix sept deux mille dix huit d'accord la Ecobank arrêté systématiquement production carte yi di ko jox étudiants yi hmm. bu njëkk da nga doon ñëw UGB sa première année ñu jox la carte man maa ngi sama troisième ane léegi ma pare musuma am carte man président de séance musuma am carte gab carte gab bi dafa doon yombal opération yi euh, dégg ma ma ni carte gab bi dafa doon yombal opération bi bien sûr moo gën a yombal parce que dañuy lay dañ lay virer sa compte étudiant bi am na heure bu ko neex dem retirer bu ko retirer sax foofu lay nekk kenn du ko jël kenn du ko laal. moo gënoon yomb mais Ecobank dafa bañ carrément dootul def dootul dootul dootu dootul dootul produire ay carte kon léegi ban format ngeen di fayee ko. voilà bu fekkee permettre ngañ ko ñu wax euh, no opérateur Wizall la ñuy fayee ko mhm. Proximo ak Cessapay. ay code la ñuy jot. Mm. des fois sax yi xam na la ñuy def. Mm. dañu leen di envoyé code ay code yu invalide nga dem di ko retiré ñu ne la sa code baaxul étudiant bi il e obligé. di woote kon mel ni ku ñu defal transfert d' argent rek. très bien noonu la transfert d' argent la étudiant bi bu fekkee dañ ko envoyé code exemple Wizall code bi mu dem code bi baaxul. Mm. day nekk mun na woote soixante douze heures pour jot service client Wizall bu fekkee Proximo la mun na woote une semaine laa di daxante si code boobu. pour jot waa Proximo non c' est c' est c' est c'est très dur mm. les étudiants souffrent si affaire de bourse yi opérateurs yi c'est le gën a pire c'est gën a pire parce que problème bi nekk mun nañ ne yéen seen seen banque bi dafa seen banque dafa mel ni ñu wut ay sous-traitants très bien leen yónnee affaire yi d'accord très bien c'est le c'est le dañuy def ay sous ak d'autres dafa mel ni munuñ hmm. te bàyyiwuñ noonu la ñuy def de Ecobank presque pratiquement fayatul bourse yi day jël kii dem jox ko liste yi yóbbu ko Proximo yóbbu ko CICAP yóbbu ko Wizall opérateur yi di fay étudiants yi nag di def lu leen neex ñoom tamit. jox ñu ay numéro service yoo xam ne bu fekkee code yi ñu jot ñoom baaxul mën nañu leen fay si base code yu baaxul aussi. na leen di woo ñu hmm. wax la soit changer le code wala wax la nan ngay def ba retirer sa xaalis. Hmm. te seen service client yi benn numéro pour tous les étudiants lañuy d'habitude maximum deux numéros la ñu am pour hmm. tous les étudiants. Est-ce que vous imaginez est que vous imaginez hmm. donc loolu la étudiants yi di dund tey moom la aller sànq ne la affaire bi dafa dem de mal en pis li changé dafa li bon moo ëpp souffrance bi tey la ëppee. d'accord tey la ëppee te malheureusement dafa mel ni ñoom duñu déglu. dafa mel ni bugguñ seen doom dafa mel ni bugguñ étudiants yi jàng dans de bonnes conditions moo tax ñuy bàyyi étudiants yi di souffrir ne serait-ce pour am seen bourse pour subvenir ak seen i seen i besoins c'est vraiment désolant c'est vraiment désolant c'est écœurant gisoo xëy na ne état aussi des fois mooy am ay jafe-jafe ci koppar ndax euh, yaakaaruñu ne ab banque mën na fa nekk ak ki sous-traitant am di defee nii nu leen neex ndax euh, jéem ngeen xëy na waxtaan ci ak euh, kilifa gi directeur des bourses par exemple pour xam un peu ce qu'il en est wala ñoom tout le temps ñoom itam dañuy sotti lépp ci kaw banque bi. non xam nga ku nekk ak sa compétence. Mm. Euh, direction des bourses ñoom lan la ñuy defar mooy état yi état yi mooy étudiants yi war a jot bourse. Mm. nañ jot bourse. d'habitude ñoom étudiant mun na war a am bourse duñ ko jox bourse hmm. loolu ñun ak ñoom la directement hmm. pour ñu rétablir étudiants yooyu seeni droit dugal leen ci état yi mais buñ defaree état yi à chaque fois dañuy envoyé ñun représentant d'étudiants yi hmm. dañuy am liste état yi liste yooyu dañ koy envoyé ministère des finances moo koy xool approuvé ko xool ne lii mun na ko fay mu soog ko jébbal Ecobank léegi bu xasee ba jébal li état yi Ecobank mais lan moo si des mm-hmm. fay mais duñ ko def fay boo xam ne yi dàqante duñ ko def loolu yëpp manque de sérieux la nekkul loo xam ne mënuñ ko mën nañ ko bourse yi du dara ci budget Sénégal mm. mën nañ ko mën nañ fay xoolal chaque chaque le vingt neuf fay étudiants yëpp en un seul coup mais duñ ko def duñ ko def malheureusement mm. d'accord alors euh, Ahmed euh, Diawo euh, xanaa ma bàyyi la bu fekkee am na message boo bëgg jàllale ci sa mbokk étudiants yi ak ci autorité yi nga jàllale ko euh, ñu daal di doog a yëkkati jotaay bi waaw encore une fois maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax maa ngi remercier waa Rewmi FM ci ci invitation bi di renouveler aussi samay remerciement ci étudiants yi ñu wóolu ba def ñu seen i représentant ci kaw loolu maa ngi nuyu bu baax a baax a baax sama camarade di nekk coordination des étudiants de Saint-Louis ñoo xam ne dañuy sacrifier vraiment pour la cause de l'étudiant donc maa ngi leen si encouragé di leen remercier bu baax a baax di leen wax nañ jàpp bu baax sama mbokk étudiant Sénégal yëpp rawatina nag waa Sanar maa ngi leen ni encore une fois di leen nuyu di leen wax nañ gën a jàpp certes que situation bi difficile difficile na trop ak Covid 19 bi ñu bëri dañ jaaxle mais dina am incha allah nañ gën a jàpp et fu ñu nekk muy seen dëkk muy feneen nañuy continuer di gën a jàng di jàng certes que nekkuñu actuellement université mhm. mais l' étudiant n'est étudiant qu'en étudiant parce que pour nga nekk étudiant il faut ngay jàng mhm. donc maa ngi leen di wax loolu buñ mës fàtte lool nañ gën a góorgóorlu gën a jàng te mhm. fait que lépp lu ñuy def après mu bañ leen bett te incha allah bépp décision bi ñuy jël dinañ leen ci sóoraale bu baax a baax a baax te lenn rek moo ñu soxal muy intérêt de l' étudiant mm. de l' étudiant moom la ñuy jiital suñu démarché yëpp fépp fu ñu gis ne lii intérêt étudiant la duñ ci xalaat mm. dañ koy soutenir dañ koy def mm. incha allah mm-hmm. di lancer rek beneen appel à l' autorité suprême du pays monsieur le président de la république Macky Sall gestul étudiants yi gestul étudiants yi gestul étudiants yi surtout étudiant UGB diggale lu bëri tey suñu plateforme bi c'est six points voire sept points hmm. diggoon nga ñu ne justice dina am tour Fallou seen ñu ngi toog ba léegi di xaar justice amagul diggoon nga ñu ay logements sociaux ñu ngi toog di xaar ba léegi amagul diggoon nga ñu connexion wifi ba léegi ñu ngi xaar amaguñ digoon nañu voirie interne suñ tali yi nekk suñu biir campus bi ba léegi amagul digoon nañu ne di nga defaraat UGB ba événement Fallou seeni jàllee yàqu-yàqu yi fa amoon yëpp di nga ko defaraat boobu ba léegi dara amagu si. kon yéen plateforme bi amul benn point buñ ñu ci satisfaire. waaye amul benn point bu ñu ci satisfaire benn batiment lañ fa tabax benn bâtiment boo xam ne mille cent dix-sept lii la xam nga na lañ def. Hmm. dañ tëjaat bâtiment bi. da bâtiment bi defar nañ ko ba pare. peinture ko lépp defar lépp xam nga la mos de ubbi caa ubbi bâtiment bi jël caa bi jox étudiants yi ñu ne dañuy xaar ay bambala ay inauguration depuis février bâtiment yi pare na ñu ngi ko tëj biir UGB peinture nañ ko def nañ lépp lépp bu baax na lépp mm. lépp lépp ñu tëj ko ne inauguration la ñuy xaar c'est dommage Mm. c'est dommage c'est comme si que ñoom xamuñ ko. benn question bu mujj rek Ameth euh, waa Kër seen Sène waajuram yi euh, ban relation ngeen am tey ak ñoom ginnaaw bi seen doom génne àdduna te ngeen nekkoon ak ñoom. waaw relation yi ñu am ak ñoom mais relation entre papa ak doom. Mm. entre parents ak ay ak ay doomam. donc relation yooyu la ñu am ñu leen dañ leen bu baax a baax a baax. Mm. waaw am na lu bëri mënuñ ko wax fii mais suñu rapport. waaw rapport yu baax la ñuy entretenir mm. ak ñoom mooy famille Fallou seen ay frèram jabaram et tout ça mm. waaw ñu ngi am ay relation yu baax en plus ñu ngi profité tamit si occasion di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax te di yeesal encore une fois suñu njàng si mm-hmm. euh, si Fallou Sène su ma jumul da ngeen fa daan dem euh, bokk ak ñoom bés bi euh, fàttali ko ndoog ñoom ci at bi passé en effectivement effectivement ah. mm-hmm. chaque le quinze bu jotee dañ fay dem daaw dem nañ fa mais ren Euh, événement yi moo tax kenn mënul déplacé wu mm-hmm. moo tax moo tax mm-hmm. mais woote nañ fa mm-hmm. waaw waxtaan ak nañ ak ñoom bu baax a baax a baax alhamdulilah ñi ngi ñi ngi sant bu baax a baax a baax jërëjëf Ameth itam ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan bi ak euh, xëy na ubbeeku bi nga xam ne def nga ko wax ñu lépp loo xam ni euh, xamuñu ko woon ndax nekkuñu woon foofu ca bés ba ñu ngi lay gërëm di leen masaw aussi ci coono yi di ñaan yàlla mi nga xam ne moom dara tëwu ko te am na saafara ci lépp luy jafe-jafe mu saafaraal leen ko ba ñëpp nekk ci jàmm. kon mu nekkoon amet euh, Diawo njiital coordination des étudiants de l'université Gaston Berger. Euh, bu Saint-Louis moom la ñu doon dalal euh, ci seen euh, émission démb ak tey amoon mbégte lool dalal ko amoon mbégte itam àndaat ak yenn ci waxtaan wi di gërëm Diawo Diallo mi ne woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm